la ngi nuyu donc le patron Mody la synthèse suma xarit suma client bañ fi taalee bourse du travail bële nekk ci booru Grand Théâtre looloo ma sos tous ma ci na parti des travailleurs et du peuple mu yore parti liggéeykat yi ak PTP ñu bëri xamuñu lan moo PTP juddu ndax ci lutte ouvrière ci laa mas nekk kon bu ma gisee waa crédit mutuel du Sénégal ñu di leen noot di leen mbugal seen biir réew dana ànd ak yéen xeex xeex boobu la xaw ma nan la mani na jël ay bagage am na dema dema dem kenn umpalewul ni falinam baaxul complot ko indi ca kaw ci njiital CMS naka ko fi indi dafa wuruj moom mbay jonn xamoon na ni satu yi mayul kenn mu di taaj ca kaw CMS à durée indéterminée mooy dafay toog rek ba retraité loolu texte yi nanguwu ko mandat ngay am bu mandat bi jeexee mën nañ koo reconduire benn yoon bu baaxul ñu évaluer leen abal ñu sa waay liggéey bi rafetul ñu seet keneen teg ko fii waaye Mbaye Dione doxaleewul noonu affaire bi waaye daa complot ak Amadou Jean Jacques Diop ni ko dama la fiy taaj ba ba ngay doyal ba ba ngay retraité yow it comme woo ñun ñooy tànn ka jiite PCA ba nga tànn ma ma nekk PCA loolu mooy complot ba garaaw a garaaw sénégalais yi xamuñu ko complot ba garaaw a garaaw ñu seddoo seddoo buru bi bu ko xas ku nekk matt kii di matt fii mënul nekk mënul nekk ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ ñoo lànk ñoo lànk ñuy wax nag li ñu mënul supporter mooy xoqatal bi dafa doy ñii mu yóbbu Matam ñii mu yóbbu Goudiry ku ni pip mu duma ku ni pip mu duma non non non ëppal na gan gi bu ngi bëgg a kër gi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bala muy yàq kër gi ñu ne ko gan gi abal ñu yoon mbedd mi ma war ñu sa numéro ginnaaw en avant allez kon loolu na leer ay junni nit junni junni nit di liggéey crédit mutuel du Sénégal yore seeni soxna yore seeni doom am seen carrière bu ñu war a sàmm sàmba booy jógee ca àll bi ñëw bëgg a yàq seen outil de travail yàq seen jumtukaay yàq kër gi ma ne toj kër gi rey kër gi duñ ko nangu kon li ñuy waxal Macky Sall di ko waxal Abdoulaye Daouda Diallo di ko waxal autorité financière yi mooy Amadou Sa Diop dafa nara sànq crédibilité du Sénégal loolu duñ ko les autorités doivent le savoir. Il y a quelqu'un qui a été nommé. D'ailleurs, de façon frauduleuse, à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal. Il s'appelle Amadou Jean-Jacques Diop. Véritablement, cet homme-là, vraiment, il doit avoir l'honneur de quitter la direction, la direction du Crédit Mutuel du Sénégal. La manière dont il a été nommé, est frauduleuse parce que pour diriger le Crédit mutuel du Sénégal, les statuts sont clairs. C'est un mandat qu'on peut renouveler. Si, après évaluation, le conseil d'administration est content du travail effectué par le directeur. Si maintenant le travail n'est pas satisfaisant, on remercie, on limoge le directeur, il s'en va. Mais Mbaye qui était là, à comploté avec Abdou Mbaye Diop pour l'installer comme patron directeur à durée indéterminée en violation flagrante des statuts du Crédit Mutuel du Sénégal. Cela est inacceptable. Cela doit être dénoncé avec la dernière énergie. La fraude est là. Parce que le deal, le complot est maintenant clair. Ces nominations frauduleuses violant les textes du Crédit mutuel du Sénégal étaient basées sur un complot, un deal qui consistait à nommer celui qui a nommé, à nommer celui qui a nommé, à nommer celui qui a nommé. la Bimao Bimao qui est du Crédit Mutuel du Sénégal dama lay taaj fi boo paree nga taaj ma fële ñu séddoo mbir mi ñun ñaar mais séddale bukki boobu mënu continuer on dit non non au non à la non au partage du butin Le crédit mutuel n'est point un butin à partager. Le crédit mutuel du Sénégal est un outil de travail de milliers de travailleurs qui ont donné toute leur vie, toute leur énergie, tout leur savoir pour le développement de cet outil. Le développement de cet outil au grand bonheur du peuple sénégalais. Non! Diop non Diop et John doit partir. Non au couple Diop et John. Non au couple Diop et John. C'est un couple dangereux. Un couple qui risque de tuer le crédit du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel aux autorités de ce pays à commencer par le chef de l'État, Monsieur le Président Macky Sall. Ce qui se passe au Crédit Mutuel est inacceptable. Vous devez prendre les décisions idoines pour chasser ces individus qui sont placés à la tête du CMS et de la BMAO pour tuer et éliminer l'outil de travail. Cet outil-là de travail, au moment où tout le monde demande un emploi. Au moment se bat, au moment où vous battez, monsieur le président, vous aurez des emplois au Sénégalais. Il y a deux, deux individus très dangereux qui sont venus pour liquider, liquider les acquis du crédit Excusez-moi. Nous demandons donc au président Macky Sall, au ministre des Finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo, et à toutes les autorités financières de ce pays de régler le problème du crédit mutuel du Sénégal, de choisir des hommes de valeur, des hommes mûs par le développement du Sénégal, des patriotes sincères pour animer, diriger, développer, faire prospérer le crédit mutuel du Sénégal. En tout cas, les autorités sont averties. L'outil de travail qu'est le crédit mutuel du Sénégal est à préserver. Et les travailleurs savent que leur vie dépend de cet outil de travail, qu'ils n'accepteront point que des étrangers à cette entreprise. que des éléments parachutés viennent pour procéder à la liquidation, à l'assassinat du Crédit Mutuel du Sénégal. Ça, va pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Mani yëg ngeen ko dégg lu jar jot il a muté les gens vers Goudiri vers Matam pour freiner l'élan unitaire de lutte contre les magouilles, les gens sont demeurés plus solidaires, la direction syndicale plus déterminée, plus déterminée, plus convaincue, plus déterminée à mener le travail révolutionnaire, le travail syndical au sein de l'entreprise pour libérer les travailleurs du crédibilité du Sénégal pour le plus grand bonheur du peuple sénégalais. Je vous remercie.